nangul nu lépp lun la ñaan ndax yàlla naatal xarnu sëriñ bi noo nangoo dagaan xarnu bi sëriñ bi noo deeti ñaan faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci Mustafa ma nekk marwataak safa ak am dil Mustafa mi yàlla jébbal xarnu bi ak mboolem ay rakam ak seen baay yañu am ak aqi seexi bamba am ndax yàlla naa xarnu bi mboolem murit yépp ngi tuub tey réccu bàkkaar yi ni jooy balu nu bay bay du góob sëriñ geesul xarnu bi mbàkke dangay boroomi mboot te sag njaboot ñu def ma antal pareet may lapputoo xarnu bi awma maqaamam di la woo waaye murid yi nooma woo na tawatal te bunu woo sawla mi ñay waw farlu biit tey jii ma bani deret ngir yaa ma demantal baret yaa bul ma tànkam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku añaan murid yi yëpp ko ñaan ngir bëgg nga déggal xarnu bi te ma tànkam lu ci ñaan ngir li ma bon tey ku añaan murid yi yëpp ko ñaan ngir bëgg nga déggal xarnu bi jooyu perantal lanu jooy boonu fabul leenu ni wooy kunu yafal bande fi kuuy mu dellu naatal xarnu bi gisunu yaay ta noo ngi raam ku yaay day namp buural te boon nga la daam rogani mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boot ñoomin ñu boot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi dafa murid yi suturaal matali jàkka jiinu naal woto yu dolli seen alaat ndax yàlla naa del xarnu bi ndax yàlla amil mustafaat tabax jumaay mustafaat bam tolli marwa taag safa ndax yàlla naa del xarnu bi mboolem murid yépp a ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal gooy ba addi yaa ngi booy sëriñ bi géesul xarnu bi mboolem murit yépp ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal gooy ba addi yaa ngi booy sarax nu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn man yooy xiif tax na gor ndaw di jooy xiif daw na yenn tool yi booy sëriñ bi xarnu bi tax nañu daa joxe ni laaj ñi jàpp seeni sas kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi xarnu bi bekkoor bi tax na kër yi tiit bàkkaar bi tax na cër yi ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi geesul xarnu bi xam nañ ne yaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu rujal daanu daggal feesal nga sàqi xarnu bin sa yërmandeenu daa defal lu xel dajul daanu defal daanu tibbal daanu leal reggal nga mboolem xarnu bin sa yërmandeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daa amal tey ñépp a yam kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñi seeni sag saggiku naa ñi seeni gaay daggiku naa ñi seeni gëm rekkiku ngir ñàkk gi xarnu bi an moo ndax mooy sene daaw mooy a far dellu gannaaw barab yooyu sax di naaw ay mbàgge geesul xarnu bi وعيدا وعينا قدرا يمان أما كل سلام قرب دانو خبيلا بما نجام الخرن بيت قرب مكبني جرم قرب يندوي دي جرم

waayam du ñiit gaariiti laaf du tilindooy sagar di daa loxoom du gaarati ci baax ku weddi laajal xarnu din waayam du ñiit gaariiti laaf du tilindooy sagar di daa loxoom du gaarati ci baax ku weddi laajal xarnu din ku weddi lii damal la gan ay saa di mbër gan yaaram la wuute naag sagan Bamba ñaag ci xarnu bi gëneeli daami gën na tuut xel mënu koo takk diroo a maati daa yu xóot lottal na mboolem xarnu bi xar baax la raw na kuy xiyaas lu xel dajul dee fu ko raas fuk raas la raw na góoru faas sakkaañi tee xarnu bi moo jara way baña selaw guddeeg bëccëg baña nelaw baraw ña daawayal caraw ngir la mu def ci xarnu bi Cheikh Bamba yaa bari njariñ fëriñ nga wute nga këriñ sëriñ si yaa doon seen sëriñ yaa mën leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondeel du mel ni lumière jant la moom faw xana weer leeram de tiim na xarnu bi